baax leen daan nuyoo yéen a ko déggandoo dañ leen di wax de le 7 juillet fii lay doon ci Adrien Senghor dama ne lutte simple lutte frappe moo ci yem képp ku doon axlu lamb ki ci ne di ci yëngatu invité nañ la ndaxte duut ñaan mooy def li nga xam ne moom mooy lii di jubilem bëre woon ba bàyyi bëre di tëgg lamb am na nu muy bàyyee bëre bi waaye mbokki Leewtoo liñ leen wax rek Ablaye Diouf yal na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana moom mboolem ñi mu fa fekk ñu ngi koy jaale jaale ko lamb ji waaye jaale ko képp kuy doomi aadima ñu ngi la koy jaale ñu ngi koy ñaanal encore une fois Abdoulaye Diouf suufu lul seeseen oyof ci kawam tooy yàgg maar topp ma ñu dem ci biir gis nga mbër yi caakaa ngi ci waaxum nuyu nañ maa ngi leen di sant di leen gërëm incha allah incha allah jam loo mën wax ci le set ñamal ñu avant moom ñu ngi woo amateur yi yëpp ñu ñëw teew ñu xam ne lamb la ñu woote non violence jàmm rek la ñu soxla ñañu am cosaan waaw cosaan rek lay gëm ñu saf sap waaw ñu toroxal seytaan yi xani ngot a xar ga xana fop xana gar tu xana gar waa lii moom xoolal béjjën bi xoolal bant yi ñu samp nii béjjën bu ndaw la ak ñetti bant waaye benn bant bi dañ koo takk boole koog bëccën bi e cumi kay aa jël suuf si jal ko xoolal mandaali lëgët bi butéel yi waa mais yaa xoolal ma lii waa mais champion waaw ah, fay la bi yaxulan la lii ah lii ay yaxu ay yaxu ay na waaye ay yooyu. waaw bii nag bii lu boo ko tey sa yaram bi day gën a tàng waaw day gën a tàng bii. boo ko tey ko comme cat la mi ñu lay mën a jàpp quoi. ban mooy gëlamal sa adversaire. man ma ma adversaire ah, bii waaw waaw non bii mooy gëlamal sa adversaire la gis. waaw yaa mu ngi noonu. Eh, mbokki ci gis. xoolal ma Ibou gan sek ndeysaan waaw ca kaw guy ga xale yi e lamba doy waar waa ñii moom jënduñu billet deux mille yàgg maar ñii daal dama yaakaar ne seen i billet bopp la waaye nag def nañu effort ba yegg ba ci kaw xanaa gars yi dañ leen di comprendre Cheikh Pouye moo ngemboo ngembulu zone li ay kon moo nu féete droite ay kon moo ngi jiital tànk càmmoñ Cheikh Pouye jiital tànk ndeyjoor yàgg maar ey Cheikh ak ay kon ba léegi ñaar ñu yemoo lay gis ñuy bëre ndeysaan Cheikh Pouye ay ñu ngi lewatoo Cheikh Pouye ak ay ñu ngi lewatoo attention song nanu songo nanu ah ay lu muy def ni Cheikh ngi ah Cheikh a ngi koy topp attention ay kon mbaa duñ ko mboot ah Cheikh waay Cheikh war na ko ndomba Cheikh war na ko ndomba Cheikh boy Cheikh boy war na ko ndomba ay kon bañ na ay kon a ngi bañ Cheikh war na ko ndomba laa ilaaha illallaah ñetti appui am na quatrième bi lay li jël arbitre bi daan na ko waay Cheikh Pouye daan na waay Cheikh Pouye daan na ay kon Senghor ma Cheikh Boy Ibou Senghor Aliou Thior eh Ibou Senghor ñaari tànk yi e nanu ndax bii sàcc tànk mu attention Ibou Senghor jël na ko jël na tànk Aliou ah tourné na ak moom daan na ko eh gaan waay Ibou Senghor daan na ko eh jërëma Ibou Senghor a ngoog ay ay la la xale bi rakkaaju na Ibou Senghor amateur yaa ngi yuuxu kontaan nañu ndeysaan ni ko Max Mbargane di waxe bëgg naa xale bu rakkaaju biram mi ngi may jox démb Reug Reug li mu wane ci stade bi daa mel ni bu nekkee lutte simple franchement démb wane na ni mën na làmb wane na ni sol na culture séeréer ba mu jeex tàq parce que démb dafa ñëw yëngal stade bi xam nga mbër da ngay rakkaaju waaw démb dafa rakkaaju mbër boo ñëwee warul mel ni dañ ah. ñu ngi koy di encouragé Gris 2 arbitre sifflé na El Hadj Ndiaye Malick Mbaye attention Malick Malick Mbaye lu muy def ni eh, eh. Ah, song na ko Concorde jàpp na la Concorde jàpp na la Concorde jàpp na ngem ñoo ngi bëre bëre suuf jàppante nañu mbër day rakkaaju moo tax Malick rakkaaju buñ ko rombee mu ne ma waa Leewtoo waa Leewtoo production kenn du ñoom ñu ngi nuyu Pape Thialis suñu moom Thialis dëgg la fekk làmb ci kenn bii di attention Concorde na ko jàpp na ko daw nag moom daw nag moom sukk na ah war nañu Concorde ndombo ndax danañ ko daan waa Concorde daan na ko la ilaha daan na ko Malick Mbaye impérial Concorde xoolal Malick Concorde lu mu bëgg moom mbaru frappe la Concorde xam nga dama koo xam jël bi rafet na day ñëw village laata ñuy commencé dem ma mu dal ci man mbabat bi jeex mu dem ñibbi. ndeysaan laata ñuy commencé de ne woon na dina ko jàpp ko daan. xoolal ma lii lamb simple waay. la ilaha illallah. sànni na ay kurbañ yàgg maar yaa ci gis yaram wa tàng la ilaha dem ah, na nee ko ñëwal. nee na ko sumeekul ñu bëre maag yow. loo ko. mbëru aw ma combat ma di compétir ku ñu dégg nga concorde def 17 combats arène 11 victoire. 7 combats arène ñaata victoire. 11 victoire la am am 6 défaites muy 17 combats arène def. gars yi ma jël. dama bokk ci làmb ji amagum naa cinq drapeaux ci àll bi maa ngi compétir nag di xaar gars yi kan nga soxla ñi doon bëre démb samay naataango lañ ñoom caat attention yàgg maar xale bi 17 combats 11 victoires 6 défaites loolu palmarès la yàgg dëgg dëgg palmarès la palmarès la ci lu simple franchement làmb a ngi noonu Doudou Niane borom si set moom la ñuy woy noonu di Djilass Production eh Jax Jax rey Wrestling Production Pape Bouba war nañ la ndomba caaka war na Pape Bouba sempi na Babou Ba bañ na daan na ko Caaka Faye daan na Babou Ba Diop ñaari xale yi ak Lamine Thiam Libidor Lamine Thiam moo dernier quart de finale bi pour ñu mën a dem ci demi-finale Lamine Thiam moo yor rouge blanc bi Libidor moo nge moo nge mu lu ñuul li jàppoon nañu ca kaw Libidor Lamine Thiam Lamine Thiam Libidor jàppante nañ ci kaw ba léegi action bu mën a daan mbër amagu ci ndeysaan ragal naa arbitre dina dugg seen diggante ah Libidor croché na loxo bi door crochet na loxol gauche Lamine Thiam ndax Lamine Thiam dina ko ci bàyyi ndax Lamine da ko kon dajeeñ moom tam ah Lamine jël na tànk li bi door waaye amu ko ah Lamine Thiam li bi door faq na ko mu bañ li faq na ko mu bañ eh, aan na ko attention Boy Tine la muy def Ibou Senghor ndax dafa bëggoon sàcc tànk ba ndeysaan Boy Tine moon woon ginnaaw Ibou Senghor moo jàkkaarloo attention Ibou Senghor gan na ko loxo ya ñu ngi lewoto ndeysaan déggal mbayang lu mbokki amateur yi famille lamb mbokki Leewtoo journée bi nga xam ne Jax moo ko organisé ndeysaan loolu déggal déggal la muy wax e eh, ba tey yile ma fra bañ ko xam saara ye e eh, mbayang lum Ibou Senghor Ibou Senghor ah Ibou daan na ko xale bi gis na lamb ji caaka am na benn avertissement eli sanga maar moo jàkkaarloog ñun caaka moo nu woon ginnaaw eli nga koy jéem song eli am na am eli sanga maar caaka fay ndax Eli dafa bëgg a caaka ci poids bi attention caaka eh, fay songo nañu ah caaka songo nañu ci kaw songo nañ ci kaw ah caaka jël na daan na ko caaka ah, fay. Biram ñu ngi caaka dafa dina mën a mën. caaka bu jëlee dina mën na ndox du bàyyi yoon. waaye xale bi sonal na ko. xale bi sonal na ko lool. xale bi il n'a pas démérité. ay dara mbayang lum la may wëcc ci ginnaaw ay mbayang lum. ndeysaan. arbitre baa ngi noonu yàgg maar gis nga ko c'est le doyen ndeysaan. Libidor bu Grand Mbolo o jàkkaarloog nun waa mais dafa mel ni ñaari seen songo daal teelul ndeysaan moomoo ngob mooy di woy ma ne ci micro bi yàgg na ci machine bi Ousmane ndeysaan dëgg boobu ñu ko déggee suñu xel dem ci Ablaye Diop bu sum production ndeysaan yéen a dégg noonu waa table technique bi Ablaye Wilane Ndoye mooy ndeysaan Thiane Seck mooy Ibou Senghor. merci beaucoup maman. ca merci beaucoup ndeysaan li demi-finale les amateurs. merci beaucoup le président Gossène Diouf. merci beaucoup les organes de presse. léegi dañuy ñëw. ndeysaan. Mame Diarra Thiam production. Ah. mooy ñëw. moom la

ndeysaan premier demi-finale bi na bi ah, ndax dafa bëgg a jël li bi door li bi la muy def mbaa woor na jàppante nañ kaw bàyyante waat nañu ndeysaan tey arène Adrien Senghor bokk ci Leewtoo ku ne am nga ngemb arbitre sifflé na premier demi-finale ah Libidor song na jàppante nañu ci kaw moo nu woon ginnaaw moom Libidor ah lu muy def ni xale bi na ko jël na ko war na ko ndamba war na ko teg na ko dox nañ ci suuf koy sees mu bañ laa ilaha illallah xale bi lu muy def ah da koy tegal chaise Libidor nga koy sees mu bañ mboot nañu Libidor ndax dana nangu bu Libidor daan na ko ndeysaan doole doxul jam dem na final Libidor Libidor dem na final. ndeysaan Libidor a ngi noonu. jooy na. Libidor jooy na. Ibou Senghor pare na. juge yi ndax pare na. Thiaka Caaka Faye Ibou Senghor Rose la fleur. waaw biram ah ñaari mbër yu mag a daje. ñaari champion la. ñaari champion du yomb. doy na final. dëgg du yomb. ku ci sàkkal sa borom daan la. Ibou Senghor pare na. juge yi ndax pare nañu. arbitre na. Caaka Faye Ibou Senghor. Diaka Faye Ibou Senghor Rose la fleur. waaw Biram ah ñaari mbër yu mag ñaari champion ñaari champion du yomb. doy na final. dëgg la du yomb. ku ci saagal xamante nañu. ku ci saagal sa borom daan la. Diaka man ngembu Ibou Senghor bi dafa dafa ma jaaxal xoolal ngembu Ibou Senghor bi lii gaay foog wax ci de. ndeysaan. xoolal ngembu Ibou Senghor bi xoolal. ngembu li dafa seere. waaw dafa seere trop. te ko ngem bu baax rek yàgg. non tissu bi bëriwul. te ko bu baax rek. te ah. ko xëj mu dëgër. ay wuñu kenn nga ngem mu mu dëgër. Ah. nuyu Maodo Mané Mansour ak Rose ay Kumba Fall Aïcha wéral ak jàmm naa léegi arbitre na leen feeñal leen buntu wala ngeen xool ni ngeen def ah ah Ibou Senghor am na ngembal caaka jël na tànk ba caaka koy mboot Ibou Senghor mu ngay plaqué caaka bañ na jogaat na la ilaha illallah la ilaha illallah bi combat ay bi combat Arène Adrien Senghor ay combat yi saf sap fi ak avertir naa la dafa mel ni Ibou Senghor jox nañ ko ndam ci kaw caaka ndeysaan Ibou Senghor am na lu daw di jéem a war libidoor libidoor bañ dox na am na mu ñaan jot na ci suuf si mais ay yoon yoon tibb suuf sa ak béjjën ba yóbbu xoolal li moom tam la mu def tibb na ñaari loxo yi yéen ci dee Gansek Ibrahima Wilandoor Gansek mooy Ibou Senghor Ablaye Wilandooy mooy nga xam ne moom mooy libi door bu gën a yëf mbooloo Ibou bu sangoor ak ki nga ne moom mooy Libidor bu Grand Yoff an ke xeƴa ka daana eh. arbitre sifflé na Libidor moo ñu won ginnaaw Ibou Senghor moo jàkkaarloog ñun Ibou Senghor numéro 2 bu écrit Gana Seras ak Libidor bu Grand Yoff mbooloo ñu ngi lewoto lewoto nañu gatt nañ ba ci suuf ñoom ñaar Ibou Senghor jël na tànk ba Ibou Senghor jël na tànk ba ndax dana ci génn Ibou Senghor jël na tànk ba jël na tànk Libidor Libidor bañ na Ibou Ser jël na tànk bi Ibou Senghor jàpp na ngem mu ngi koy yëkkati tuur na ko mu bañ Libidor bañ na laa ilaaha illallaah Libidor daan na ko mbokki Leewtoo lii lañ leen indiloon ko fii ci arène Adrien Senghor ki nga xam ne moom mooy Jax production moo ko organisé Libidor bu Grand Mbolo daan na ki nga xam ne mooy Ibou Senghor bu Gana Seras jël bu set wecc Ibou Senghor jaaxle na waaye il n'est pas de mérite yàgg maar làmb noonu toujours mu wone boppam ñu ngi jox gars yi dox daje dimanche bii di ñëw drapeau Pape Thialis Faye ki am na mooy Mame Diarra Cang Cang Cang production organisé ko waaye du ñaan bu jilaas le 7 juillet jubilam lay doon mbokk internet yi ca ba beneen yoon incha allah